jiyee di nga xam ne nag moo xew démb fële ca ab euh, bâtiment bu daanu te nag ñaar nit ñàkkoon ci seen bakkan am fële ca quartier Ndoro ñu ne am na yeneen ñaar nit xam ne kon gisaat nañ seen i néew gannaaw bi nga xam ne kon sapeur pompier ñu ko doon ay opération euh, de sauvetage mbir moom nag kon mu am bi nga xam daal ci benn kër ab daal moo daanu ci kaw nit ya gannaaw ñooñu nga xam ne ñàkk nañ seen am na it. lu tolloo fukki nit wala lu ko ëpp loo xam ci ay gaañu gaañu fii ci Sénégal lu toll cinq cent mille jàpp un million ci ay xale eh, ba fi ba fi mu nekk nii kon demuñu loolu nag euh, ñu ngi ko xam euh, démb gannaaw bi nga xamee ne nag euh, ñi seq wàllum jàng ak bi ñoom ñoo doon amal daal ay waxtaan ci lañ daal fësal kon li loolu nag tax ba fi nekk nii nag war nañ am taxawaay bu baax baax ci li nga xam ne moom mooy euh, njàngug euh, xale yi kon ba daal ñoom ñooñu la di xale yooyu demoon école ñu mën dugal ci li nga xam ne moom mooy l'école yi. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Burkina Faso foofu nag bésub tey bi dañoo xëy daal euh, dégg ay fetel yu ñuy sox. mu amee nag foofu la ci capital ba di euh, dugu loolu nag euh, fa mu amee sax jege na li nga xam ne moom mooy euh, présidence de la république ba ñi nga xam ne nag ñoom ñooy réew ma di soldat sax te sa jiitu di lieutenant colonel pour Henri Sandogo Damiba def na ab déclaration daal génn xam ne ne kon waral loolu daal ay soldats yoo xam daal ñoom ñoo ñoo jëloon seen ngànnaay di def yooyu la sox mu ne wante fi mu nekk ñu ni sax ay waxtaan euh, ngir daa doon waxtaan ak ñoom ngir euh, lii di jàmm ji dellusiwaat mission CEDEAO bi nga xam ne ñoom ñoo demoon euh, fële ca Mali ngir waxtaanee mbirum 46 i ivoiriens yooyu nga xam ne dañ leen faa te sax ñu leen di mbirum atteinte à la sûreté de l' état mission nag jóge nañ foofu la ca Bamako te sax defuñu benn déclaration jëmale ko ci lii di euh, presse bi délégation boobu nag amoon na ñaari président muy Nana ak Addo bu Ghana ak Adama Barrow bu Gambie wante it euh, ki nga xam ne moom mooy ministre des affaires étrangères bu Togo di Robert Dussey. bokkoon na ca ak Goodluck Jonathan bi nga xam ne moom mooy médiateur de la CEDEAO pour xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg njiitalul Russie di Vladimir Poutine moom nag bésu tey bi amal na ab euh, cérémonie foofule ca Kremlin ngir daal euh, fësal nangu bi nga xam ne kon waa Russie nangu nañ ko ñeenti gox yi nekk ca Ukraine muy Luhansk euh, Donetsk Kherson ak Zaporijia moom nag ba léegi sax mu ngay woo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ukraine ngir xeex bi. te sax ñu mën a ubbi ay waxtaan seen digganteeg euh, Russie réewum Iran lañ koy jeexale foofu nag bésub tey bi ay nit yoo xam ne dañoo nga xam ne moom mooy benn commissariat bu nekk ci province bu Sistan Baluchistan ñu ne nag euh, gannaaw ba loolu amee am na ay policiers yu bëri yoo xam ne ak ay nit ne dañ doon am nañ ca ay gaañu gaañu bi la xibaar nag télé yow national ba ñoom ñoo ko fësal lii ñu leen day ci ay xibaar doon seen